kooku warutu échouer. mais moom il est il est le mieux placé même pour connaître les hmm. comprendre les Sénégalais exactement mhm. moom moo war a xam parce que xam na dund na ko donc président boobu su échouer ñaar am soit am na ñu ko war ñoo xamante ni ñoo koy yàqal wala boog moom mu am fenn foo xamante ni daf fay can te gëw ne day can ku am talent la. am talent tax mu yegg te jógee fi mu jógee président Macky danoo bëgg mu réussir réussite boobu nag. yoon bi muy nekk moom baax na. Hmm. xam nga bërki démb wax nañ fi waxi tubaab bi Philippe Lalliot bërki démb ak démb. Hmm. mais dañoo xëy tey. Mhm. maître Oumar Youm ak ñeneen ne nguuru Sénégal dootul nangu ingérence ci biir dëkk bi. loolu neex na ba dee. kon président da da ànd na ak ñun. Mhm. ñu ci même instant bi ñu ne ñu président àjjuma bële signé na. Mhm. ay accord ak waa Dubai Port World. kon moom comprendre na ni parce que nit nag benn moment mënoo topp benn nit rek nag mu naan la kaay kaay kaay kaay benn moment da ko fay ba nga dem. Mm-hmm. gëm yàlla. Mm-hmm. bu fekkee ci tànk yooyu la la tege moom te dañ ko ciy encouragé. Mm-hmm. lu rafet la li nga xamante ni mooy poste nañ leen dimbali même bu dee mënuñu joxe lépp ñu entamé. fo fi am problème yëpp nañ entamé te nag nguur bi na na def nii. Badou ñu def ko comme tali yi ñuy ubbi nii. fu nekk rek waaw nañ entamé fu nekk parce que nag parce que nag. mënoo mais tamit ba na yegg de. <laughs> gis boobu ba tey dawul de. déggoo li ma la wax problème yooyu yëpp na président bi nga xam ne dañu bëgg mu des ci histoire. Mhm. moom xam na lan la war a def. Mhm. na ko def ñi nga xamante nii dañ leen téye ci ay rapport ak ñeneen nga xam daf leen moom dafa ànd ak ñoom. Mhm. tey jii nii ku nekk directeur Sirédia bu poste dañ ko tuddoon ci mbir mi. bu fekkee ni par exemple ñooñu ñëpp dañ leen tudd te yaa leen fa teg waaye bu fekkee ni dafa am lu ñu doon jël di ko joxe ci parti bi te yow nga leen koy joxeloo. bu rapport génnee nag pour nga téye leen mhm. trois points de suspension. alors donc ñu daal di jublu rek ci ki nga xamante ni moom mooy nganu ngan yi euh, di Justin euh, alors Trudeau mu nekk premier ministre euh, Canada.